ni danañ fi waxtaane lu am solo pour eh, ñi ñuy seetaan ma leen di nuyu au passage en tout cas c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau ñu démarrer par l'actualité gis nañ ko euh, actualité euh, arrestation euh, kii di Ousmane Sonko Ousmane Sonko a été arrêté procureur génn def conférence de presse ci liñ ko toppee jàpp nañ ci appel à l'insurrection mais ce qui a fait rire tout le monde c'est justement vol de téléphone peut-être prétexte la woon pour pour l'arrêter qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de de tout cela mais déjà li procureur wax c'est-à-dire que dans un pays qui se respecte boo dëkkee ci ay appel à l'insurrection ba loolu aussi am ay conséquences euh, parce que mënoon nañ ko néewnal sax bu dee amul ay conséquence mais il y a eu des conséquences quand même terribles dans ce pays bi ci gën a métti mooy nous avons beaucoup de nos concitoyens qui ont perdu la vie waxuma maintenant côté matériel et donc loolu bu amee ci ab réew amaat et cetera la responsabilité euh, de la justice c'est de gérer cela et je pense que loolu loolu laa ci dégg que euh, principalement appel à l'insurrection yooyu notamment de façon répétitive moo waral d'ailleurs mu jéem a wane ay image pour wane depuis quand même euh, deux ans loolu mu ngi am euh, et certainement il y a eu un travail d'investigation derrière parce que là c'est un point de presse hein oui euh, alors euh, un travail d'investigation euh, naka lañ koy euh, qualifier parce que on dit appel à l'insurrection vous l'avez dit dans un pays qui se respecte ñu identifier la personne buy woote à l'insurrection euh, il l'a fait une fois deux fois trois fois parce que suñu déggee lii di point de presse su procureur bi c'est à plusieurs reprises et ci ci manière yu bëri bëri donc ñu bàyyi mu am ay mort ñu bàyyiwaat mu am ay mort mais comment on peut comprendre cela. non mais un appel bu amee xam nga yow doo préjuger tout de suite que day am ay mort loolu malheureusement c'est des faits constatés par la suite te dégg naa ci itam euh, mu wax tuuti par rapport ak ñi ñu euh, arrêté y a quand même beaucoup de gens arrêtés par rapport aux faits maanaam action yi ñu mené suite à ces à ces différents appels donc tout cela a nécessité forcément parce que des gens qui sont privés de leur liberté depuis a forcément nécessité un travail euh, d'enquête, etc. Et euh, le procureur, aujourd'hui, a son dossier. Je ne suis pas dans le secret de ce dossier-là. Euh, je pense que point de presse bi la ñu mën a gum jël qui de mon point de vue expliquer lu waral arrestation bi euh, firndeel na Sénégalais yi que c'est pas uniquement cette histoire de de de portable ça a été l'élément déclencheur mais que c'était prévu euh, depuis quelque temps que loolu day am maintenant seen i procédure ñoom ñoo ko maîtriser ay la yoon man moom euh, dama ci mën a xuus parce que je suis pas un spécialiste de cette question là mais on a l'habitude de dire euh, que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes Ousmane Sonko avec plusieurs dossiers de yu dul jeex bi ci moo doon cette cette cette cette histoire Ousmane Sonko Adji Sarr affaire Ousmane Sonko Adji Sarr ba ñu condamné ko ci à deux ans de prison ferme il est resté chez lui la décision de justice n'a pas été appliquée même bu fekkee dañoo jàpp ne que euh, mu ngi doon toujours euh, en cours de rédaction alors euh, loolu tamit ñëw dalaat ci kaw lii est-ce que du am jonction par rapport à ces à ces dossiers vraiment au koy définir le, ce que je peux comprendre c'est que il y a effectivement plusieurs dossiers et c'est regrettable parce que euh, on les on les on les accumule et on essaie ñu jox ko mbubu euh, acharnement alors que boo xoolee les concernés sont vraiment différents c'est pas les mêmes euh, benn côté bi c'est un problème de diffamation et euh, nous sommes dans un pays quand même voilà où on a espoir que si euh, quelqu'un Euh, nu porte tort mën nañu dem ci justice mu fajal ñu ko donc euh, un dossier de diffamation euh, où il était catégorique affirmatif et tout sur des points de des, des conférences de presse ou des meetings euh, ce citoyen est allé devant le, la justice la justice lui a donné raison donc a, a estimé que le sieur Ousmane Sonko li mu doon dara amu ci te pourtant bu ñu jëlee ce citoyen là Euh, cela a impacté dans sa vie dans sa réputation dans son honorabilité ba ñu koy jox ay surnoms au niveau au niveau public et quand on accuse quelqu'un mais Ousmane Sonko n'a pas été le premier à, à, à dire ça non non mais je dis euh, quand quelqu'un euh, vous savez ça moi je ne suis pas le conseiller de de, de, de, cette, de cette victime mais quand quelqu'un va devant la justice qui lui donne raison par ce fait-là il a eu à démonter tout ce que les gens disaient auparavant parce que kii ko gënoon a porté ba am ay affirmation am na ci preuve il a pas été capable d'aller euh, prouver cela il a même fait une sorte de déni de justice hein, parce que nanguwul dem euh, avec aji Sarr c'est pareil nanguwul dem c'est-à-dire nangul dem seetal boppam euh, donc des des formes de suicide judiciaire yoo xam ne dañ koy accumuler mais on on ne cesse aussi de de ngay continuer li ko waral maanaam les causes et c'est ça qui est dommage donc aujourd'hui s'il y a s'il y qui n'est pas acceptable. C'est justement ces problèmes d'appel d'appel à l'insurrection dans un pays qui, qui se respecte. Ça, quand même, euh, surtout avec les conséquences graves que le Sénégal a eu à vivre de ça. Parce qu'il ne s'agit pas d'étrangers, il s'agit de nos enfants, de nos petits frères qui ont eu à perdre la vie. Vous pensez qu'il est moment responsable ou euh, ces gens qui ont eu à perdre la vie dans Mais ces manifestations Ces gens sont sortis pour qui Sont sortis pour répondre à qui Sont sortis pour exécuter les instructions de qui voilà, ces gens, c'est pas vous, c'est pas moi qui les ont appelés dans la rue. C'est pas vous euh, ni moi qui leur avons dit vous êtes euh, assez fort physiquement, que vous pouvez vous imposer et que, <clears throat> à la rigueur, nous pouvons déloger un pouvoir qui est démocratiquement élu et installé. donc aussi il faut savoir assumer hein, dans la vie quand quand on, quand on est dans une bu ñu nekkee ci benn posture dañu koy assumer ba ba ci fin bi foog naa ne foofu la ñu. ko loolu tam est-ce que c'est pas un peu trop léger euh, jël yëpp teg ko ci ginnaaw euh, wala ci ndoddu kii di Ousmane Sonko alors qu'on sait que depuis mars 2021 euh, on avait soutenu que dinañ def ay enquêtes pour situer ses responsabilités jusque-là amuñu benn. responsabilité qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il n'y a pas d'enquête? Qu'est-ce qui a permis aujourd'hui à ce que des dizaines de Sénégalais soient. Euh, privés de leur liberté ci raison yi. dañoo waxoon ni que euh, dañuy teg commission d'enquête président de la république bi ñu ko euh, posé question ci fan yee ci ginnaaw il a soutenu que enquêtes yi ñu ngi toujours en cours. Oui. mais de mars 2021 à aujourd'hui juin encore mu amaat ay morts. mais ça, arrive... ça ça peut être beaucoup plus long. dans ce pays on a connu des dossiers qui ont été beaucoup plus longs que ça mais je dis entre temps euh, man li may noter mooy que beaucoup de gens aujourd'hui sont privés. alors euh, en parlant de participation inclusive à l'élection présidentielle ñu dem ci euh, ces candidatures déclarées ñu gis ne que ku nekk ngi bëgg bokk euh, ci élection ku nekk ngi bëgg nekk candidat mu jaral leen lu nekk le président de la république ñu ngi koy xaar pour mu décider ci sooru Benno Bokk Yaakaar euh, lan lañ mën a xaar déjà ci Benno Bokk Yaakaar. dégg naa yow sax da nga bëgg a dem. <laughs> waaw je suis candidate. <laughs> kon damay annoncé affaire bi fii ma jiitu la ci non <clears throat> président. lii day wane ni mu ngi waxtaan ak njabootam. Mhm. ce n'est pas dans la précipitation. Mhm. effectivement mu ngi dajeeg ñu bëree euh, mu ngi dajeeg kuréel yi aussi maanaam les kuréel yi euh, constitué Benno Bokk Yaakaar euh, donc waxtaan boobu parce que lépp ci lañ ko mën a la mën a juddu li ñu fas yéene def parce que le but c'est pas juste d'avoir un candidat le but c'est d'avoir un candidat qui puisse rassembler la famille vous savez man ñu bëri dégg nañu fi ma doon wax ni. Euh, candidature Macky Sall nécessité la. Mm-hmm. Euh, lu taxoon mooy wax loolu xam nga bu ñu jiitaloon bu ma jiitaloon sama bopp wala sama parti et cetera du waxee noonu parce que ñun dafa am fu ñu bokk am aussi suñu yéene. Mm-hmm. Euh, ci ci ci réew mi mais ci analyse bi ma defoon la. par rapport ak li Sénégal war a doon ak li mu nar a jànkonteel fii ak ay diir bu gàtt notamment 2024 buy buy tournant bu décisif bu mm-hmm. sensible mais itam li mu mënoon jur ci suñu suñu kuréel ñun. suñu famille politique quand je famille parce que quand même euh, douze ans de compagnonnage euh, dafa am lu muy jur euh, tey am na relations yoo xam ne dépassé na les simples frontières de parti conséquence possibles yooyu yëpp le fait que ma jàppoon ni on a ici au Sénégal un régime malgré les difficultés qui mm-hmm. sont extrêmes Euh, malgré parfois des des des problèmes de compréhension ci suñu askan suñu jeunesse maanaam pour ñu approprier wu li ñu def. te jàpp ni métti na mais lii mooy yoon bi euh, ma jàppoon ni euh, war.